jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite seen point com dal leen ak jàmm ci seen récap du jour ñu digtal leen li gën a fës ci xibaar yi. Serigne Baye Ndiaga Diop mu Cheikh Ibra Fall nekkoon ab communicateur Baye Fall yi lañ ñu yëgal génnuk ma tey si euh, suba bu ñu sukkandikoo ci xibaar bi nga xamante ne ni moom la page bi nga xam ne moom mooy Cheikh Ibra Fall mystérieux joxe. Luc Nicolaï nekk promoteur eh, gracier nañ ko ginaaw bi nga xamante ni dañoo jub feetu tabaski waaye nag muccagul benn yoon ci delluwaat prison dinañ ci ñëwaat ci lu gën a yaatu. coronavirus fi ci Sénégal lu yem ak 106 nouveaux cas positifs eh, la am tey ci eh, àllarba juróomi fan ci weeru août 77 cas contacts la cas importés ak 27 cas issus de la transmission communautaire. Euh, mbokk internet yi pàcc yi gënoon a fës ñu ngi noonu nes ki sa ñu jukkil leen xibaar yi comme li ñu koy waxee woon ca njëlbeen ba dañ koy euh, tàmbale ak génn àdduna ki nga xamante ne moom mooy Serigne bàyyi Ndiaga Diop mu Cheikh Ibrahima Fall nekkoon nag ab communicateur Baye Fall yi moom nag ñu ñu yëgal génn àddunaam tey ci suba bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne moom la page bii di Cheikh Ibrahima Fall mystérieux daal di rek joxe. di ko njaal nag askanuk Sénégal yi yëpp ak communauté murit bi Alioune Badara Niang itam nekkoon nijaay ci ki nga xamante ne moom mooy Idrissa sekk nekk njiitu parti Rewmi lañ ñu yëgal itam génnuk àddunaam ni ki démb fële ci hôpital principal bu Ndakaaru Alioune Badara Niang nag bokkoon ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo taxawal parti démocratique sénégalais ak ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Wade Idrissa Seck nag di jarbaat ci ki euh, faatu li mu yëgle rek mooy que nit du mën a teewee levée du corps bi nga xamante ne ni moom la moom la ñu war a defal ki nga xamante ne moom mooy Alioune Badara Niang li ca hôpital principal tey jii euh, moom nag li mu xamle mooy que nii rek bëgg rek respecter gestes barrières ak règles yi nga xamante ne nii moom la ñu joxe ci ànd ak xeex mbas mi fi ne. waaye nag loolu terewu ko benn yoon mu wane rek naqaram ak tiis ginnaaw bi nga xamante ne nii kii di Alioune Badara Niang génn na àdduna ñu fàtte rek ci ay jëmi jamono ki nga xamante ne moom mooy way dawlu bile nekkoon ancien PCA bu groupe AMSA assurance di ko jaale rek askanu ko Sénégal ak njabootam yëpp. Luc Nicolaï nekk promoteur muccagul la benn yoon la ci dellu fële ca euh, prison ginnaaw bi nga xamante ne nii njiitu réew mi président de la république gracié nañ ko ginnaaw ba ñu dëgmalee feetu tabaski Luc Nicolaï euh, moomule muccagul benn yoon ci dellu fari ca prison bu fekkee ne ki nga xamante ni dañuy dippe Bertrand Tulli jël na ndogal daal di rek saisir justice pour exercer yi nga xamante ne lañ tuddee la contrainte par corps ngir mën a exiger ñu euh, fay ay indemnité yu tolloog ci 300 millions yi nga xamante nii moom la mën a infliger ki nga xamante ne moom mooy Luc Nicolas ñu fàttee rek Luc Nicolas li ñu ko toppee woon rek mooy détention de drogue association de malfaiteurs et tentative d'extorsion de fonds ci jamonoy 2012 ñu condamné ko woon nag à cinq ans de prison maanaam juróomi at yi kaso dont un an avec sursis dans le cadre de l'affaire de la drogue du Lamantin Biche bokk na itam li gën a fës ci xibaar yi mbiri coronavirus fii di Sénégal Euh, tey ci àllarba bi juróomi fànn ci weeru euh, août sur 1241 test yi nga xamante ne moom la ñu euh, amal 106 ñoo ci ñëwaat positif soit un taux de positivité de 8 virgule 54 pour cent cas positifs yi nag ñu répartir ko comme suit 77 cas contacts suivis 2 cas importés ñu enregistré fële ca AIBD ak 27 cas issus transmission communautaire cas communautaire yooyu nag fa ñu ko saytu rek mooy Kër Massar Saint-Louis Thiès am ci ñaar Bignona Diourbel Grand Yoff Guédiawaye Kaolack Kédougou Xombol Kolda Malem Hodar Mariste Mbao Médina Ouest Foire Pikine Pout Rufisque di Tivaouane Touba yëmbal ak Ziguinchor bu ci nekk am ci benn 68 patients ñu hospitalisé woon lañu contrôlé négatif ñu mujj leen déclaré guéri 38 cas graves yu ñuy prendre en charge ci service de réanimation yi ak 4 nouveaux décès yu ñu enregistré démb ci mardi bi ba fi mbas mi duggee ak léegi nag ñu am lu yem ak 10 538 cas ñu déclaré positif 6 988 yu ci amee ameetan ak 3 331 patients sous traitement. nday si nekk euh, feccikat indi na ay leeral si rumeur bi nga xamante ne nii moom la ñu jàllale woon ci yenn ci réseaux sociaux yi doon wax rek dafa làkk ëmb te ki ko ko def di ëmb euh, di Badiane moom nag li mu moom nag li mu indi ci ay leeral mooy rek euh, li mu sekk ki nga xamante ne moom mooy ëmb di Badiane mooy ko ni déjà daf ko jàppee rek comme magam ak papaam. te itam sax seen moom moo leen boole ndax day yëg ci kaw seen moom mii li nga xamante ne moom mooy ndey si daal di fecc ba pare wàcc ki nga xamante ne nag moom mooy Amady Badiane daal di rek apprécier liggéey bi nga xamante ne nii moom la moom la def. rax ci dolli nag mu nekkoon wóorlëre ki nga xamante ne moom mooy ne Badiane nekkoon soxna ci ki nga xamante ne nii moom mooy Amady. Euh, donc diggante boobu daanaka euh, dara xaju fa euh, nday si nag li mu daanale ay kàddoom ci wàllu woowu mooy rek di wax ne dara jotu ko te sax nag moom ak ki nga xamante ne moom mooy Eumeudi Badiane daanaka musuñoo seq sax lu jëm ci wàllu woowu. Pape Ndiaye ñu koy dàkkantale le plus ancien détenu du Sénégal ñëwaat na ci grâce bi nga xamante ne ni moom la président Macky Sall daal di koy defal ginnaaw ba ñu jubee feetuk tabaski. ginnaaw nag ba mu remercier kii di njiital réew mi président Macky Sall ci glace bi nga xamante ne nii moom la ko defal moom Pape Ndiaye mu ngi wëlbatiku rek di wax kii di président que ni moom si jëm boppam bëri na loolu ci ay euh, projet ndax it nag daanaka lim nekk prison yëpp nekkee wu fa woon tëdd ka te jamono ji itam am na lu bëri loo xamante ne nii euh, warloo na ko. Pape Ndiaye itam ñëw na ci euh, personnalité yi nga xamante ne ni ñoom ko marqué fële ca prison te mu gisoon leen fa ñu mun cee lim ki nga xamante ne moom mooy Khalifa Sall Idrissa Seck ak it nag kii di euh, Clédor Sène Pape Ndiaye bokkoon na ci bandu euh, Inno gënoon ci féete ndaw nag bokk na ci li mu ay kàddoom mooy rek ni kii di président Macky Sall mu jox deuxième chance ñi nga xam ñeneen yeneen détenu yi nga xamante ne ñu ngi fële ca prison comme ni mu ko defee rek ak moom. mbokk internet yi loola jotoon ruus ci xibaar yi bëccëg bi cant ak ngërëm ñeel na leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen jox dig daje ëllëg jërë ngeen jëf. Baye daa bàyyi ma ko nettali de. Mhm. nee na ma doom ma ne ko waaw mu ne ma Cheikh sama nopp. Mhm. loolu gën a wóor. lu ko gën a wóor a ma. Baye Cheikh Ndiaye daa mhm. ma maag bokk benn guddi gunu gën a jamono. Baye Cheikh Ndiaye daa bàyyi nee na Cheikh Ibra ne ma Cheikh Ndiaye ma ne ko faal mu ne ma cëppeelu ca kaw ca néeg ca kii ba daw dab leen wax leen loolu mais bañ bu ngeen dëppee di ngeen fekk ma tàggu sam sëriñ nee na ma ne sarax ci néeg bi nuyu sëriñ bi ne ko gis naa fa ma mën a jàll de ak a dégg wolof nag mm. <laughs> waxee nu wolofam kenn yoru ko mm. bàyyi Seex Taal Galo moo ko daan toggal nee na ma daana xëy wax di wax olof suba ba ngoon kenn du xam li muy wax. te boo ko déggee dinga xam ne olof lay wax. Mm-hmm. ma ne ko Baye Cheikh loolu nu mu demee Baye Cheikh Tall Galo mm-hmm. mu ne bës naa ko ba guddi mu ne sëpp sëw maa ko mën a dem sëpp sëw. sëñ Modou gar mi de ñoom ay wolof lañu waaye sëpp sëw. waaw sëpp sëw sëñ Modou sëpp sëw <laughs> sëpp sëw. waaw maa ko mën a dem. mën a dem. maa ko mën a dem supp sëw maa ko mën a dem nan naa ba màndi ku sëgg ma màndal la nan naa ba màndi ku ma màndal la nee na daal di def ni nag di def daal ne ca kaw ne kër gi yëpp di riir waaw daana xëy ne belle su ma ràññee ràññee suma ma bellee su bellee ràññee daal def ni loxo bi ci dënn nit ñi ne lu muy wax su lu mu doon wax ah Amadou Mbaye ràññee mhm. su ma ràññee. waaw ah, bellee su ma ràññee. Eh, bay loolu mu tekki. ràññee su ma bellee <laughs> su ma bellee ràññee. daan mooy man de. waaw. daan ne bellee su ma ràññee ràññee su bellee su bellee ràññee. xam nga luy bellee suma ma ràññee. Hmm. xam ngeen loolaf di wax belli. Hmm. belli mënuñu tànn ba mu sëb ñu ber ko nële. Hmm. demaat ca lañ tànn ba mu set ràññeewaat ca leneen. belliwaat ko ràññee ko Cheikh Ibrahima nee na moom laa ba noppi nit ñi di ko xeeb. daan wax bellee su ma ràññee. ràññee suma ma bellee su ma bellee ràññee. ci yàlla ne nii loxo. Eh te man ñu ko fekkee ñoo ma ko wax de. dégguma ko ci kenn bu kenn defe ne damay foraatu. leer na waaw. Baye Daouda Gueye Baxdaas. Mhm. taalibu Cheikh Ibrahima maa ngi ñëw de sëñ dafa nuyu sëñ Cheikh Fall Baye góor sëñ Cheikh Fall Baye góor ne nañ ma woo ma ñëw mu ne ma njaga kii Cheikh Ibra ko yar lu mu wax Cheikh Ibra ko wax mu ne ma lu ma la wax dama naan la sa maam Cheikh nee na daaw de géy ma ne Fall mu ne ma nangam ne ma njaga mas na ma ne daaw de géy ne ko Fall mu ma lamb yàlla àjjuma lañ ko tëgg moo tax ñi nekk fi yori téere di fuddan seeni sikkim fekkew ñu sax làmb yàlla <laughs> mu ne làmb yàlla àjjuma lañ ko tëgg gaaw mu xumb lool dibéer làmb ja tas lu muy tekki xool na de <laughs> ah làmb lañ ko tëgg dibéer làmb ju xumb lool làmb ju xumb lool dibéer làmb ja ja tasee daaw da géey ma ne ko faal mu ne ma yàlla gërëm na ma ñetti yoon mhm. yonent bi gërëm ma ñetti yoon sëñ Bamba gërëm ma ñetti yoon keroog laa raw bët raw xel ah daaw du géy li ngeen yor muy ay bët ak xem munu xam de man fa ma yàlla teg raw na bët raw xel ah ab daanukat daal daanu bay daaw di géey bàyyi wax ja daal ne ah neexu leen a waxtaanal di doom bëggoon na ma jàll de te Baye Daouda Gueye daaree Baxdaas la doon tarbiya Cheikh Ibra waaw kon danañ ñëw ci loolu. nee na nee na sëriñ ba ne ma fii ku fi ma si jóge dangay am ngërëmal yàlla dem waaye kenn du fi jóge di dem ci keneen. xam nga dama leen waxoon ci njëlbeen gi ne dane gis naa fu ma mën a jëm. nañ nañu dégluwaat jàng wolof ci waxinu Cheikh Ibra. Mhm. gis naa feneen fu ma mën a jëm. Mhm. loolu waxin la koo ko wax te mu yow da lay bàyyi nga dem. wallaay nee na sëñ ba ne ko fii ku fi ma si jóge da ngay dem am ngërëm Cheikh ba ne ko du da ngaa xëyoon gis ma. adduna ba mu daj ci adduna ba mu daj fulla moo ko jëm. est-ce que mu ne ko waaw ah, mu ne ko koo xëyoon gis ko bu xëyee ne maa ngi dem looy def mu ne xanaa bàyyi. <laughs> kenn mënta wax ak moom ne woon na avocat yi tee ngeen a jàngi Cheikh ra wax dëgg yàlla ko ngeen plaidel ñu bàyyi ko ah na matière yëpp de. Hmm? matière yëpp la jàng da ngaa xëyoon gis. wallaay mu ne ko waaw mu ne ko ma xëy ne maa ngi dem. Eh. mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na foo jublu yàlla na fa yow yàlla jublu. Hmm. nee na sëriñ ba ñaanal ma ñaanu njéppite. Ah. xam nga mag ñi. Ah. bañ la masaan bëgg a ñaanal te bëggal ñu laa wax ne ñaanaluñ la. dañ la naan waa ah, baax ne demal foo jublu yàlla na yàlla jublu <laughs> waaye fal wax ji noonu. te dañ la ñaanal Cheikh Ibrahima nee na ndeketi sëñ bi xamul ne ismu laay lax sam la ñaanam. fa mu jëm muy sëñ Bamba fal yiw yàlla yëpp daje.